si Mao Cissé jarama le présentateur réalisateur rubricard maa ngi lay kontaane bu baax a baax baax loom maa ngi leen di bëggee sama gars yi ñoom Karim maa ngi leen di kontaane ay waay li ko def xam nga tamit am nga lii mooy maam ra na waaw lii lan la lii lan la ah, waaw baax na kii toog kan la waaw ku nga xam du ci dimbali. ak kat commencé gis nee nee yàlla oh, <laughs> am na ku laajte am na ku ma laaj démb ne ma noo def ba yére bi. waaw <laughs> am na ku ma laaj ne ma lii kan moo ko ñaw. Euh, yooyu yëpp laaj nañ ma ko. yàlla baax na àddina am solo. Modou Faye ko ñawoon te muslu couture. Ah, man baa génn na réew mi. Euh, mu ngi fii moo dàq a ñëw ci réew mi. ah ñoo ah, ah, ah bi ni mooy zèbre. ah doon jàng métier. <laughs> lii koy jàng métier kay def. <laughs> ay ñu ngi leen di bu baax a baax a baax seetu Sénégal wax naa ni showroom bi moom laa ko dippee bis bu ne ak ñi nga xam ne ñoom laa ciy àndal bis yi nag day gën di ñëw yaakaar naa ni la ñu woote woon partenaires yi ñu ngi koy commencé dégg ñu ngi wuy si ne fii mhm. seetu Sénégal showroom la mhm. loo bëgg mu jaay loo bëgg nga xam dañ koy jaay bëgg mu mhm. jaar fi nga koy indi loo bëgg nu koy wane pour mu feeñ fi nga koy indi arkall wax naa ni xale yi mën na noo wane xale yu feeñe mën a wane waaw luy naa wa neexasaan waaw loolu am na ku feeñe mën a wane yée ñii mënul ah ku mu wane nga wane wu maa ngi lay siyaar maa la wax li maa ngi lay delloo doom diñ bokk <laughs> yàlla na yàlla defal ko jàmm la bàyyi na tudd matuma ko bàyyi. bàyyi ju baax ji bokkuma ak moom dara. yow da ngaa bokk ak man. munu ma maa kii munu ma ko jekk sa mag laa. yàlla na xel de ñoo bokk kon kii baayam nga. yàlla na xel de yàlla na xel de. te loo ko mus a lay wax rek woy woowu laa lay indilaat lan laa la taasul démb. taasul nga ma ah. kaata fayu waaw kaata kaata ah. Ah, ku la mës a ah, la mës a kaata ñaf ko biir <laughs> kaata fayu. waaw kañ kon. <laughs> waaw kay jànnaar maa ngi lay jaw maa lay déggee. <laughs> jaw maa lay déggee. Camara Camara donc Abba maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne ñoom laa fi fekk maam raan moom moom boo ko bëggee rek bégal ko dee koy jaar ci soxnaam kon moom itam ah, sama mbokk ndar boobu ñu ko koy nuyu ñaataan bus maa ngi lay bëggee bu baax a baax di leen di nuyu yéen itam ñu ànd ceeg Abba rek ci noonu jaañ na euh. Ah, ah, euh, Camara la <laughs> Camara Camara la waaw koy jaw Camara la euh, kii man maam raan man li ma jaaxal mooy ku bëgg a maanaam béeg da koy jaar ci soxnaam. waaw loolu am na. loolu di barki démb. waaw loolu ah, ah ma ne. loolu day demee mbégte fa du doy. waaw yàlla dimbali na ma. Eh. abaa ah, dem may xooj. maa ngi gërëm ki may xooj. Oh, eh, eh, ah da da ci. waaw da xooj. Ah, waaw yow ma loolu ay mag moo yow moo. 3 heures ay ñàkk a fay de 3 heures ñëpp bay ñàkk a fay def réew mi kenn du jàmm fu la trois ma yow bàyyi ba yow bàyyi ma itam na ngeen nekk di werante ak ma ah, trois heures du matin mën nuyoon dégg yow trois heures ba ah, ba suuf si set ñëpp bay ñàkk a fay def ah, maa ngi lay maa ngi lay fay Aba euh, di nuyu euh, Mam Ran di wax ni plaisir bi ñuy dund ci plateau bi moom lañ leen di jox. Euh, c' est plaisir également de partager le plateau avec Mado bi nga xamante ne dama ko moon macha allah. di nuyu waat suñu sponsor yi nga xamante ni fekk si nañu fi ci kanam tuuti di ngeen xam ni lépp dëgg la comme ni ko Aba waxee léegi rek luy feeñ moo neex a wane waaye li ñu teg ci kenn table ji kenn du ko jeex. dëgg la. mu ngi nii la ñuy wax de. ñoom Saraba bio. boo Beauté. ñoom sport vitamine drink yooyu yëpp di ay suñuy partenaires yoo xam ni ànd nañu ak ñun. ak tabarkalla jawda meew mi nga xam ni moo gën meew mi nga xam ni moo mën meew mi neex loolu dinañ ci ñëw léegi ca kanam kanam waaye Mamran. waaw nga teg noonu sa kanam. ah xam nga ko. jàmbaar fàkk tëdd baa ngi noonu. waaw ndeysaan. Ah, bu bëggee baat ca kër. lee ci man. boo bëggee sa kër boo waxee ñu ne nem. koo yenn mu dem lee man. buñ la commencé yab sa kër commencé la. boo fi taxoo ñu xam ne kilifa fi na lee man. boo waxee xale yi du ñurum turu ci suuf. ba lee koy dindi. boo waxee ñu lay bañ a tax xam lu wala. moo koy dindi xam nga ci dara. boo bëggee sonn ci wax ji tayal di itas. ay fi taxul lee àllee ci ay. loolu lépp dañ ko ciy defal ay fitta xoog ay toogal fii dajul ne la ba ma ñëw ah. yëpp mi ngi ci biir vitel bii mais bu sa yaram dee métti nag moo ci gën a gaaw nag moo ci gën a gaaw boo nege nege waaye faj boo feebaree moo ci ay a kii mooy mooy mooy faj lépp yaram boo xam ne oom yi bañ xam nga yow léeg-léeg da ngay sport waa sport boobu ngay def boo wàccee jarul ngay wax kenn na ku la bés jëlal li rek nan buy nan mi wàcc lii man dama ka xool maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay mm-hmm. di la jaajëfal di la wax ne la sama doom day yow bu ma lay xool mm-hmm. sama xool bi day mel ni glace ah, ndax dama laa bëgg maa ngi yàlla defal oto baa ngi ñëw am na ku ma woon léegi aba ah, ah, loolu juguma ndax loolu juguma ndax taximaan ma yeb léegi tax ma dugg ci taxem mag la volant bi mënu kaa téye damay tuddee yàlla ba ni may ñëwee waaw damay tuddee yàlla ba ni may ñëwee maa ngi woon ci paa la mag la ma xool ka ne naa ko ah, fay rek ah, ah, mu andi ma jàppale ma waaye léeg-léeg mu daw mu jaax naa ko papa waa ñu tuddi waa mais may nuyu waa Thiaré Géej di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan parce que lii yaakaar naa bi mu bi ñu ko door rek léegi mbégte mi ci am man damaa mujjee yem léeg-léeg sax dama naan yéen te ngeen bàyyi li ngeen def Dakar ndor ba ngeen nii amee euh, dara lu dul ñi ko ñi ko sëq rek xol yee yaatu ndax nit moom boo toogee ci plateau xol yaatu day feeñ ci doomu aadama yi kon donc ñu ngi leen jaajëfal di nuyu jigéen ñi baax ñi euh, di wax ne ñu kontaan di nuyu waa Thiès yëpp na eh, eh, eh, ay si bis boo ma énervé ba man gis nga boo boo réglé wu ay eh, maam eh. naan aar ma eh. boo naan nii aar bii boo xam naa ne da ngay tëddee sa xel bi tëddee ah, ci ne. waaye non non yéen bu leen naan pour ñun la. bàyyi leen ñun ñu naan ah, bàyyi leen ñu naan yéen ñaari naan bu ñu àndee naan baaxul naan ba pare rek. ah yéen boo leen naanee ba pare ñu ah. man duma ko servir kenn te duma ci ñam. luy loolu. ñu ko te te ñu leen déglu. da ngeen bëgg sawar ndax dañoo bëgg sawar. yéen seen sawar bi arrangé wu ñoo togg reer moo tax. wax dëgg li ñuy liggéey yëpp ci kër gi waaw kii lay nar a doxee. mais naa ko a ay coupé nan décalé ay coupé. kër ga wuyu ma kër ga dana gën a neex te dana ëmb. ñu ngi xëy fajar. waaw toppatoo kër gi toppatoo xale yi. bale raxas menace ñoom bu ñu ñëwee seen caprice wuyu ma ku ci naan ñu naan. ah ñu ne ci page yëpp maa ngi leen di bégee ñoom. Matar Ndiaye ah yéen daal maa ngi leen di kulim Dioum ñoom dëggeen si la ni na ci page TFM bi yëpp maa ngi leen béggee bu baax baax baax waaye yéen ñii setaan mën ngeen ñu ba tey bokk ci émission bi dugg wax suñu ay produits wax ci ah, tawarkal xale yi fi toog wax ci seet yi nga xam ni dañuy soog dugg ci sëy yaakaar ni ñoo moom nit ñi loolu yëpp mën na ngay dugg ah, ci émission bi ñu waxtaane ko ci 88 628 65 65 wala 88 628 02 02 72 86 88 628 04 05 88 628 yooyu yëpp numéro yooyu yëpp a ngi noonu. ñu ngi noonu yëpp yéen numéro bi yëpp yéen a ngi koy xool yéen yéen bu ma ci produit yéen laa koy jox man du ci wax numéro yëpp yéen noonu ngeen koy gis. album Youssou Ndour bi mu ngi noonu ba tey ni seen QR bi nga xam ne mu ngi feeñ. seen écran bu ngeen ko scanné. da ngeen di am li nga xam ne mooy album bu la neexee nga dem Wave. bu la neexee nga dem Orange Money. bu la neexee nga dem Free Money. bu la neexee nga woote ci numéro yi. Mm-hmm. ba tey mën ngaa am album bi nga xam ni Youssou ko génne muy mbalax. wàccoon naa ak ñun nii ah Aba. Mm-hmm. Youssou wàccoon ak Sénégalais fi mu toll nii. abo albumam bi neex gi mu neex man dama mujj a waaru. dinaa ko laaj nag moom ndax daa mos a dem géej ndax moo li lim leen di ak bu leen di way ah mu ah Youssou daawul mbaali way moo li way na leen damay ragal fi Youssou way na leen ak géej gi waaw te maa ngi maa ngi ci wàccaay woo xamante ne nii di wër fi nga xamante ne mooy dëkki mool yi lu garaaw nar am ci tale bi doon ci may tuuti ah, nan na ci may oh. ah loolu ah aba lu ma ne mool ni muy taajee ceeb ak ni muy añee ci mbaar yi la bëgg wane ko ci télé bi waxtaanu mool waxtaanu mool xam nga ne boo demee seen séndu

fii la ñëpp yi wër. moo yëngal réew mi fii toll nii tembe tembe mool. waaw xam nga mool yi eh, Youssou nee na ci fan sam yëpp mool yee ko gënal. waaw mool danoo bu jàppee duñ bàyyi. ci wax noonu dafa rëy. danoo daas sama fan si yëpp yëpp. waaw muy bëri bëri. mool yee ma ci gën a ñoo ma ci gënal. c'est-à-dire ah. tànn na leen. waaw tànn na te tànn na ñoo xamante ne nii tey jii duñ ko may dara. parce que man caarooy laa def. samay mbokk nga fa waa Saween. waaw moom bu fa yeggee. waaw caarooy kese laa wax de. waaw ko defati. ah parce que gars yëpp a ngi préparé léegi nag waa Bargny ñooy def ñoom. Ah, waa Gendar nag. Joal nag ah, waaye nag ñu jara way waa Fadiouth nag. man ay grand bal ci séeréer ya fa yeggee dina xam ne lépp dëgg. ay grand bal ak ay événement yi muy waajal nii. damay ragal ñu dund dugg. bu lébu yi ñëwee. non non moo di ñëw. abaa booy lebal lebal lébu da lay fay. <laughs> ba bis la ay garmi lu leer ah, maa ngi lay wax lu leer. te way wii bu ko lébu yi jàppee bay. ah di nga xam ne way a way. duñ na fi sapeur pompier yi way fi ah, ñeneen ak ñeneen mais ñii ko abaa waxee. ñoom dañuy ñëw def ko seen yëfu bopp. dëgg la waaw damay ragal ñu indi nañ dugal suñu bopp ci biir way waaw Eh, eh, abaa lu zone li nañ koy sonal <laughs> defal ko bot ya mu def yëf yi xam nga lu may def ma eh. dugg si tënk xam nga lu may def ma def ma doo xam nga lu ma koy def dama lay transformer sirène laa lay def sirène la ñuy def ma doo waaw loolu dëgg la loo ci xamul loo ci xamul wayu leen rek bàyyi de da leen a woy ba pare wax leen war a def. dëgg la waaw wax leen war te li mu wax dara dindu ko. waaw ah, boo ko amee day gën a wóor. waaw da ngay mën géej waaye ah, yor ko dafa doon lu gën a wóor. dëgg la waay ne nii ah, même bu yàlla defee li gën sax boo réeré ma daa di a feeñ. dëgg la waaw loolu looloo tax loolu mu leen way. woy leen way nii rek bu ñu génn ci way bi ñun ñëpp nañ def suñu bopp ay moom. ndeysaan nag ku ne wut loo napp. waaw ñii nag napp waaw nag ku wut loo napp def sa bopp moom. ah bu la waxee napp looy napp waaw ah lan lay napp. napp kan waaw looy napp looy napp looy <laughs> napp. kon nag yéen waa. <laughs> naa sànni onze. waa Sénégal lu <laughs> ma jël xam ne mooy sama wërsëg. waaw ah ah ah, ah, ah yow boo xam nga sànni gàtt gàtt rek la nit woote rek wax ñu exactement. bu boobaa maanaam sànni lan la war a napp. si ñu ko jot a xam ci fruit de yi boo ci taamu. lu fruit de mer nga a koy lekk. <laughs> kii bàyyi jën waaw yow bàyyi ma yow. xam nga ni demul ci si pax demul ci demul ci dara. bëggul ayca ayca bokk na ci suñuy partenaire moom waa. Saraba Bio. waaw Saraba Bio Aba comme ni nga ko waxee moom mooy diw ji nga xamante ne dafa génn gën law la ca tubaar fakal la comme ni ma koy waxee saa su ne jéeg ji nga xamante ne amuñu woon karaw wala ñi nga xamante ne woon dañu manqué woon yu baax yooyu ku ma seetaan rek maanaam lu ne fàng kenn du ko jeex tubaar fakal la macha allah lii yoo koy joxe li nga xamante ne moom moo di sar wala ngay bëgg di sawar wala ngay bëgg di yëngu foo toll wala n am énergie waaw waaw Aba loolu moom ah, ah, li ko waral mu ngi nii yaa ma gën a xam def nga jàngat bi ba xam nga xam nga lii bu ci yàlla def a ah, waaw dafa mel ni ah dafa mel ni ah, waaw ku doon laajte faale ngay. xaaral xaaral ah, ni ñëwal. ayca nga ne ko baax na waaw lii. waaw ndeysaan lii dafa baax. abaa lii man day baax ci man. day baax ak man ndax fii ñu toll nii lii bu ah, la yàlla dimbalee ba mu nekk sa kër. da jox cër boo xamee di nga xam ne cër bii am na lu ko am loo wax ñu ne gongo ah. moom ci këram. mais man ren ba ci terrain de football bi. waaw waaw waaw man ren ba ci place bi ngay liggéey fi nga toog nii. xam nga ne lii bu ma xanaa ne ñi ma daan korosati ñu génn réew mi dinañ génn mën a ah, réew mi dem ndax day ànd bi ngay am abaa lii dëkk naan baax na ñi ma na ñam naa ko maa ñam lii daa mel ni kii bu ñu ko laajee ci lii war na kaa mën a wax. kii nag eh, mooy eh, invité bi nga xam ne tey moom la ñu am ci plateau bi moo ñu indil li nga xam ni. Euh, moom mooy euh, li nga xam ni moom mooy euh, sport vitamine drink. waaw waaw pour sportif yi la pour ñi nga xam dañu nekk ci activité. Mhm. pour ñi nga xam dañuy soxla énergie bu bare bare bare ñoom ñoo ko moom mais ki indi. Mhm. sport vitamine drink bi. waaw moom xam ngeen est-ce que xam ngeen moom nuy turam moom. vitamine C la tudd. ah yow mi vitamine C. salaamaaleykum. waaleykum salaam Aba. ku baax ku mu ne teew ñu ne taal yow yaay kan. man la vitamine C. <laughs> waaw am na yoo xam kii nga xam ni. ak drink bi sport euh, drink ak li ci kii wax lépp man buñ ko boolee damay ñibbi. noo tudd déedéet. C ma bant wala. turki de vitamine C yaa ñu indil lan. waaw maa lay indi sport vitamine drink. waaw d'accord. Maaw may na clip ñu waxtaan ak vitamine C. balaa ñu wax suuf ba pare Maaw clip. waa Sénégal. Mhm. di nuyu la monde di leen nuyu yéen ma fekk plateau bi waaw boisson bii nii nag mooy boisson énergétique non gazeuse sport vitamine drink. Mm-hmm. Euh, kii nii euh, made in China la. Mm-hmm. mu nekk boisson boo xam baax na trop si koo xamante ni bon da ngay am ay fatiguement wala koo xam sportif nga da ngay entraîner wala sax koo xamante ni sax bon max nga te tamit euh, yaa ma gën a xam. Mm-hmm. baax na tamit si pour ñoom. 100 pour cent énergie la non gaz gaz bi 1 pour cent la. légère na sucre bi bëriwul waaw baax na daal si ñëpp daal baax na sportif yi bu baax a baax a baax baax na tamit si ndaw ñi ci mag ñi ñëpp mun nañ ko utiliser mm. parce que boo xoolee Sénégal dañaa sonn si boisson gazé yi mm-hmm. boo waxee gars yi dañuy kaas mm-hmm. xam nga am na ñoo xam sax day néewil butit yi xam nga ballonnement xam nga mais kii nag mooy waa yi mm-hmm. waaw di wax sénégalais yi nañ ko xool bu baax parce que baax na trop macha allah ñu bàyyi ko xel waaw boisson bii nii pour mën ko fa fekk waa kii Padois Builders ngay dem en face du pont Sénégal émergent Euh, ñun ñoo dend ak pharmacie sañ Saliou bi. Mhm. waaw boo laajtee boisson énergétique yi rek ñu wan la ko. Mhm. waaw macha allah baax na trop muy boisson yu neex. waaw mais sucre bi c'est léger bëriwul. ku yeewu sa yaram bañ. moo ci moo ci gaaw boo yeewoo nii sa yaram di bañ. Mhm. boo ko laalee bu sedd guy bi. macha allah moom fu mu toll waaw bu dee dix nga doon daw di nga daw cent. boo yeewoo war a dem animé war a wax yi bëgg énergie bu bari. mën nga ko jël. waaw mën nga ko jël tamit baax na tamit si animateur yeeg waaw. musiciens yi artistes yi xam nga macha allah daal énergie la daal. sportif yi booy dem saal. waaw baax na tamit sportif yi booy dem saal waa ñi nekk xam nga baax na trop si gars yi franchement quoi. waaw ñun footballeurs yi. waaw yéen tamit footballeurs yi tamit kii tamit baax na ci yéen. Mm-hmm. waaw ñoom Sadio Mané. Mm-hmm. Euh, Messi macha allah fan lay jógee boisson bi made in China Chine la jógee directement fii si usine nag la jógee nekkul loo xamante ni day jógee si usine bi ñëw si ñun directement waaw direct si bi tamit est que jar na wax que xam na ñoo xamante ne xeetu aba bi moom lu mu am benn déedéet day am na waaw kay donc boo ci naan benn xanaa war na a baax waaw benn benn par journée rek xam nga da ngay dem salle di sport booy di yëkkati ay yu la ëpp di la yàpp di la manqué respect boo bañee ku la yàpp waaw waaw waaw la lii lii wañaaru lii. dragon la maam daal. waaw dragon bi lan la boo xam naa da du toog ba jug. te duñu wax te duñu wax dragon. waaw mu wax ci dragon bi dina mel ni dragon boo ko naanee. bu melee ba mel ko mel noonu ngay def. waaw ku ni mu dem ci kër c'est les changé. mu dem. Mado ñëw bi. Ah. benn nga ko war a naan parce que d'habitude dañ naan boo ko naanee ngoon gi doo mun a nelaw wala loolu le matin nga koy jël. waaw loolu dinaa ci sawar loolu pour leeral ci tuuti. parce que ñu bëri dañuy naan boisson énergétique yi boo ko naanee du ma nelaw. wala genre yooyu noonu. mais bii nii moom boo ko naanee dinga nga nelaw moom. Mm-hmm. waaw du la teree nelaw moom. parce que amul gaz quoi. Ah, ba pare dafa légère quoi franchement quoi. Mm-hmm. waaw boo ko naanee moom. di nga nelaw macha allah. Mm-hmm. ah en tout pour cent rek la am ci. suukar nag. ba surtout loolu nag. suukar gaz bi 11 pour cent rek la waaw. loolu moom moo a na nii daal lii dafa baax ci réew mi lii dafa baax ndax nit ñi. ay surtout oom yi bañ. nga yeewu sa oom yi mel ni kuy bañ. di ruux ay oom yu ruux xam dina ci baax dina ci war a de ak rabu lañ ci def muy ruux <laughs> xam naa ne yii dina ci baax. baax na si waaw kon naka mag ñi ah, aba ay bu fekkee da ngeen ko soxla ngeen nga ci numéro yi mun ngeen woote ci numéro yi abaa comme ni ko doon waxee ci meew bi nga xamante ne moom moo gën du ci numéro yooyu nga xam ne ñi bëgg li nga xam ne moom mooy ah. <laughs> dama la bëgg 78 196 <laughs> bu ñuy wut tamit emploi ay employé wala ñoo xam bëgg nañ liggéey ak ñun ah, ñu bëgg a liggéey nekk distributeur waaw parce que boisson bi ay jeunes ñoo ko wàcc macha allah kon dégg ngeen ku si gën a mag 29 a ndaw j'ai 24 ans. ndeysaan xam kon ah, macha allah yi déglu ngeen ko vitamine C wax na ko kon képp koo xamante ne da nga ci bëgg. wala am ci revendeur ma joxe le numéro yi donc revendeurs yi ils peuvent utiliser le ils peuvent appeler au 78 196 43 56 wala nga woote 78 325 23 53 ba. ba pare ñëpp xam nañ li chinois yi di lekk ak li ñuy naan. te 600 millilitres moo ci nekk ni mu mel ak ni ñu organisé woo ak ni ñu donc loolu moom euh, ku ñu jox ne lii euh, foofu la jógee sa xel war naa dal nga war a xam ni waaye meew mee ngeen di seen. mooy jawda. ma meew mi moo gën. meew mii moo mën. Ah. meew mii daf lay daf lay régimir. meew la ah. tabarkalla naturel. meew mii membrane ta ta ta ba pare xoolal membrane. Mhm. meew mi gis nga bi mooy lait sans sucre bi. Ah, lactose la bii. Mhm. mooy lait naturel. entier. bii ngay gis nii. maam raan mooy lait de la ferme. jawda bii. bii ngay gis nii. mooy lait de la ferme bii mooy demi écrémé bi. bii naturel entier bi. bii mooy. jawda yaa ngi noonu. ak loolu demi écrémé booy togg ñi togg xam nañ femmes yi xam nañ lan mooy demi écrémé booy togg seen yooyu ngeen defar ak yooyu xoola xale yi bu ñuy dem école xale yi dem école xale yi nga xam dañuy nàmp ak kii xoola bi da am banaan. bii moom dañoo wàññi suukar bi. bii moo gën ci croissance su xale yi dañoo wàññi suukar bi. suukar ci boppam moo baax. voilà mi ngi noonu. bii de 10 à 24 mois. de mois. ba pare moo gën ci croissance su xale yi. baax na ci trop am na calcium am na vitamine. waaw baax na ci seen màggaay ah, ah, waaw dafa baax ci ah. seen màggaay. am na sax bu bañ jàngi boo ko joxe mu jàngi. ñu jàngi ñu jàngi. ah lii boo ko joxe mag sax mu dem. lii jël def fi. bu ñu dem école bu ñu dem école. ah lii boo jàngul dañ lay dóor ba nga tëdd. mais ku ko jox nga xale ba dañuy reetaan moo yey ree lii daal foo dem fekk ko fa mu ngi ci supermarché yi mu ngi ci grande surface yi donc boo duggee laajteel meew mi nga xam ni moom mën fi ñu nii mooy meew jawda meew mi nga xam ni moom la xale yi bëgg mooy meew jawda femme yi nga xam ni dañuy utiliser waañ di togg ak yooyu dox am na ñi nga xam mooy demi-crème bi bi nga xam ni boo sonnee naan ko da ngay tëdd nelaw xam nga meew daf lay dimbali dafay baax ci say sommeil yeeg baax booy noppali ko yooyu donc meew maa ngi noonu mhm. meew jawda waaw damaa bëgg nit ñi nga xam ne ñoo yor seen produit mm-hmm. nan ñëw lii tunga na du teew ñu nataal mm-hmm. ku bëgg a jaay dara ñëwal fii te stable ba pare une semaine waaw ma jaay la meew mi waaw semaine bi ci topp waaw ma indil la jus bi nga xam ni waaw moom la ñu indil moom ba tey moom waa Sawda waaw ah ñi ay jàmbaar la booy xool bii bi meew la mais dafa am banaan effectivement xale bi da koy jël muy defal yaramam dafa naturel xamante ne dina consommer fruit naan ma ngi noonu ah, léegi ma gëm jëm mën a xëy naan lii daa ah, du ah, bu leen ko ber xale yi rek sax dafa am di nga xam ne moo koy jàppale ngir mu ah. kii ngi naan kii ngi naan seen plateau bi neex na ba fi neex yam tarkal la ñii ngi dund de <laughs> ñun suñu yoon nekku ci ah. ak euh, sama waaj ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax <laughs> foog naa ni lépp leer na euh, moo gën ci coono mhm. booy sport ak boo bëggee am énergie sa yaram euh, bàyyi ak di sawar ak yooyu looloo ci gën. donc fi ñu toll nii fàttali numéro yi fàttali place bi fi mu nekk rek mhm. waxaat ci boisson bi tuuti bu defee nu yeewee ndax xam nañ ni fi ñu toll nii activités yi daa bari. waaw mhm. merci beaucoup Aba. waa di waxaat ni que boisson bi nii moo ngi Padois Builders mm-hmm. en face du pont Sénégal émergent waaw ku ko ci bëgg nga dem wala nga wootee bon si service commercial bi xam naa boo fa wootee dana jox numéro bi mm-hmm. waaw moo ngi noonu daal boisson bi daal boisson ñëpp la boisson Sénégal la ay mm-hmm. sénégalais ñoo ko fi wàccee. waaw énergie la baax na trop pour coono xam nga sportif yi mun nañ ko laal artistes yi mun nañ ko laal. waaw baax na daal macha allah daal. waaw di remercier plateau bu baax ñi am soxna ak ñu dëkk i ko wax dee. ñu ko wax dee. ñu ko wax dee. noo tuddati yow mi fàttali ñu sa tur bi. waaw vitamine C la. vitamine yi mën na maa rey. léegi léegi euh, clip yaa ngi ne euh, clip bu ngeen bëgg ñu waxtaanee ko tey balaa ñu koy yeewi moom. Mm. Euh, kan mooy njëkk tànn sa clip kan mooy tànn honneur à la femme Mame Rane. Ah, ah, jëf maa ngi ne jëfa jëfa te ah ah yaa ko tey jëf bi fii la woon Abba. fii nga bëgg ma foo bëgg ma jëf. wuy ma aji fii jaafa jëf mu ne fii la nga war a jëf. wuy wuy ma foo jëf ma ànd ak yow. moo ko may. <laughs> Ah? ma may bi ma may ko sama mbokku grand foyer. waaw dégg bi yéen vitamine C mi. boo tànnee sama morceau ah. vitamine C di nga xam. Ah, maa ngi xaar ba nga tànn sama morceau seetal li ngay def de. <laughs> am na ñun ñëpp nag dañoo am. soo seen xel tànn nañ ba pare. ma laal Ndeye Diouf bu Serigne Fallou Góore. bu Serigne Fallou Góore. Ndeye Diouf bu Serigne Fallou nee na moom la jël Góore. Góore kenn may may. Góore waaw maa ngi koy may. Euh, maa ngi lay maa ngi koy may axlu bi yëpp di nga ko may waa Grand Yoff xam nga fu ma jugee. di ko may sama waa gaale sama waa famille xam nga famille. jooy ma li waxitale la. yaayu mami di jooy ñëpp naan dina changer avis ma bàyyi leen bañ pare ma làmb sama poos. woote génne musuwaar ne ko am pour mu foog damay damay. dégguma li nga wax. waaw musuwaar naa ko waaw wax ji am na étiquette damay laajte. lan moo tax nga tànn sama bi nga xam eh, xamante ne moom moo di jaaga moom itam di référence moom nee naa woy bi ñu ko ko woyee waaye wel nañ ko képp koo xamante ne moom moo di jigéen jigéen bi nga xamante ne dafa làmboo ay jukkoom tey boo toogee déglu woy wi rek day mel ni woy yaa ko moom moo tax vraiment ñi ngi joyaat ki nga xamante ne moom moo di suñu papa coon moo tax booy woy tamit na nga woy loo xamante ne dafa am sens moo tax nee nañ woy bu diglewul yeetewul ñun bëgguñu ko te woy wi dafa am sens moo tax man ma bëgg ko ndax dama ciy gis sama bopp macha allah kon nag euh, gaa yi bëggante leen te fexe jaamu sëy te yàlla tax. li maam daan wax ngeen am seen ngërëm sang mooy lim. waaw abaa kuy jigéen. abaa dama lay wax ne la. Mhm. way wi euh, kenn ku ne mën nga see jàng dara. Mhm. kii duñ ko wayal kuy nelaw. Mhm. jaaga nelawul de. boo dégloo way wi da ngay xam ne papa coon ci xol la koy tibbee. ko lii kenn du ko wéyal. koo ah, dara dafa dara. ñii duñ ko ah kii duñ ko wéyal koo xam ne day tëdd ba naaj wi jëm ka. loolu la kii taas wax. waaw ku def dégg. waaw waaw ku def ku def doo dégg dara doo dégg dara. ku def ah xam ah, kay aba yàlla nañu yàlla defal jàmm may nu ay soxna yu baax. soxna su baax moom mooy jàllale góor. wóor yi ah, aba li ma ne benn nga jaaga baaxama tax coon way ko. waaw kon dañuy ñaan yàlla may nu. bu way gumbe xaaral ba def ay dix ans damay way bu teel a way damay xooj kii ma commencé xooj bu yàgg waaw xam nga ne xarit Saar gërëm naa ko de mooy yow bay eh, eh. maa gërëm sama <laughs> maa teel a ah gërëm naa ko léegi nii ñaata ay 10 ans lañu gërëm naa ko maa ngi gërëm samay goro waan bul topp kii man bàyyi lay ruubee aba gërëm naa sama jabar am na droit wala amul droit dañ ma xooj aba kenn daaw ma xooj dañ ma xooj raat bu la neexee aywa bay ma ko dara une semaine dama yow eh, la dama la bëgg suñu jooy sigi de xade ngi ni li ñuy xool ci doomi gar mi yaa ngi ci yow xade laay wayal ku la min du min kaneen ndanaan sonn na. jigéen buy sëy daal bëgg ngaa dégg yee la. waaw man ah, Mamran ñii dañoo def huit ans de mariage. ñii def dix ans. papa Thion ak sunu yaay Kiné Diouf yaakaar naa ni euh, macha allah ay trente ans jëm kaw. Mamran ñu soog a way. kenn ku nekk ak say Mamran bi Omar Pène di way soxna Banna. def nañ trent ans jëm kaw. Mm. Mamran bi Youssou di way Aïda. Mm. def nañ fukki at jëm kaw. jël na guddi Maam Raan bi Ismaïla Lo di way Fa Diallo. def nañ 30 jëm kaw. Maam Raan teel na. jël na guddi mën nga cee na guddi. jël na guddi mën laajal Bouba mu produire la. na way nit ci jël na guddi. dara ko sax waaw <laughs> ah, man dama xaa faale sax. kii bàyyi benn guddi. ah man nga jëmale kese la dund. ñaari kese mën nga ko gën a jugee ah kese bi ah. Eh, eh, fay nañ ci sow ma doon eh, sow ñaatam la. oui oh. Samba Ndeye. <laughs> non. Ah. non. ah bàyyi ma. Ah, yow bàyyi ma. daali la daal daali la daal ku nekk gën a koo dégg woyal ba mu neex bu fekkee am na ku ne ci ligne bi nañ ñu ko jox ci 88 628 65 65 wala 72 86 wala 02 02 wala 03 03 wala 04 05 ay ca 88 628 66 yooyu rek waaw billahi 88 628 65 65 wala 02 02 wala 04 05 wala 03 03 wala 72 86 wala yooyu rek. waaw 88 bi dañuy moom. wala yooyu rek déedéet benn yoon nga koy wax. 628 88 bi du fa jugee moog 628 bi. waaw li ci topp rek a ñuy topp. 65 65. 03 02 02 03 03 04 05 72 86 yooyu rek a ciy topp. waaw oh. ayca ba tey mën ngeen a am. Fall maa ngi leen di nuyu. kooku boo duggee ci Ndeye Fatou Niang ma dugg ci Yumane. sama doom ji tubaab fakal la Marème Diallo. bi mu duggee ci kër ga dara ñaaw. kon abaa réglé da ngaa war a ah, réglé. kenn moom waa kër aaw bi waaw waa kër aaw bi la noonu lan moo tax nga tànn son bi nga xam ni moom la Ibro woyoon mu defoon coow lu bari nag ci réew mi rakk Mama Mbaye ba nekk ay xale def Mama Mbaye mag waa la li ma koy laaj rek la fooroo mu mun a <laughs> ah, ah, man la am na dama ndax Mama Mbaye am mag ñu tudde Moussa sax mu ne la ma sa euh, bi ma koy teg ma sax ko Ibro naa c'est-à-dire naa doon naa peut-être dégg turam et tout mhm. mais mënu la wax ci kanamu nit bi ban la comme li may wax artistes yi tout temps rek des fois da génne son boo xamante ni moom mooy jaay boppam lu jar sax ngay woo animateur bi naan ko mhm. te tey est-ce ma teg wala bul ma fàttee teg wala dara mhm. parce que tey son boo ko liggéeyee man waxuma sax ci ni ñu ko liggéeyee mais naturel bi nekk ci biir et beneen message bi ma ci séntu mooy nit foo mën di nekk da na defee fa mu am ab lac boo xamante ne day nuru day nuru fleuve nga defee ko fa parce que gis nañ ko fi mm. mais moom non dafa génn ci kër goo xamante ne nii tey jii bu tawee nga gis ndox ma dugg ca biir dalee leer ni tey ndox mi kër gi dañ ko sëkk mm-hmm. mu jéggi wallaahi jéggi dem ndox ci diggu mbedd mi ànd ak xale yi donc mu nekk ay message yoo xamante ni mm-hmm. des fois artiste bi koy woy sax du ko xam parce que kii tey koy xool ni mu mel ci en tant que animateur day jékki-jékki def descente biir këram billaay yi topp film mm-hmm. filmé ko mm-hmm. génne ko mu nekk loo xamante ni man a chaque fois su ma ko gisee damay kontaan waaw parce que fi nga waaw tey jii bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma demee xombal tey damay bëgg sama papa a chaque fois danaan ma diw jaar na te duñ ma wax sax ni jaar na fa da ngay jékki nit jógee ba Dakar di dem Touba jaar xombal jaar nuyu sam papa après continuer waat donc tey jii boo nekkoon nit koo xamante ne da ngay nëbb fi nga nekk am complexe fi nga nekk du fa ñëw sax balay seet donc loo mën di mel ci àdduna mhm. fi nga nekk del bàyyi xel tout le temps ni mhm. euh, tey jii foofu la foofu nga juddoo voilà foofu nga juddoo foofu yoroo foofu nga màggee dara gën ta neex nga yor sa limousine wala limousine wala nga yor leneen ak leneen wàcc foo xamante fa nga yaa ngi yoon bi te bàyyi woo nga xam ni fi nga juddoo am nañu fi nga yaroo nga génn dem indi oto bu mag wala nga seen kër na mën nga yéegal ah, xool ci loolu dañuy yokk la kenn na judduwul étage kenn na judduwaalewul ak étage kenn na judduwaalewul teranga teranga yàlla day def mhm. mën nga bokk ci euh, askan woo xam ne suñu borom moo leen may teranga waaye jaar-jaar dafa am solo askan woo boo ko toppee bon wax la euh, fi nu jaar da xam ne nit ki waaw da ngay da ngay xam fi nga bokk mhm. te nit euh, li ma lay wax abaa mooy doomu adama mhm. fi nga bokk boo ko yëkkatiwul faneen foo yëkkati du safe ah, may nii waa caare caare mm-hmm. géej fa laa jóge ñëw fii juddoo yëmbal man fu ma mën a toog rek mm-hmm. euh, dinañ dégg na caare yi parce que amuñu fu lu ëpp fa nu dëkk parce que lu mu guddi guddi fa la ñuy finaan yi la nit am sax bul waxati bon banlieue boo amee tur sax boo gisee ñuy def dara lu baax da dem topp ci ànd ñoom pour génn ñu xam ne yow mii kii li def tey boo ko am amoon da nga koy def lu ci nekk soo amoon ay millions da koy def fi nga dëkk te woy wa nag nañu daal man daal woy wi damay bëgg ñu ñuy daal a a xale yi ñuy bàyyi xel ci seen clip yi yéen a ngi xool xale yi seetaan al mooy la télé waaw te génnoon yëmbal dem point e toog wala dem almadi bëgg fàtte yëmbal yéen a ngi defar xelam ni dafa war a gëm fa mu jógee am xam nga da def tey xam nga xam nga ñi bëgg tey waxuma ay waxi sew waay waay waay yéen ngeen baal ma waay. bu ci kenn gis sa bopp. waaw dëgg la lan la xam ne kenn mënu kaa wax sa tur lan la ne ku ndaw kenn mënu kaa yóbbu ah la yow. ku dugg ci ñaar ku dugg ci ñaar ku dugg ci ñaar wax yow kenn mën naa maa neex fi nga yaroo fi nga màggee fi la ñu dalale baatu fi nga ko wanee fi nga ko tee fi nga tekkee loolu delluwaat fi nga yaroo fi nga màggee fi la ñu dalale baax fi nga ko defee ñaatam li nga uh-huh. bi dem Podor nga xool ah yenn dëgg yi métti na mais yow est-ce leen ku ne yenn dëgg yi métti na yenn yi wàññi leen dëgg gi ah, baax na ah yenn dëgg yi ñu ngi jéggalu ma ne lom ñu ngi jéggalu ah del dem yëmbal yaakaar naa ni Ousmane Minam xam nga xam nga émission bi àdduna ñëpp ak ñuy xool eh, foog naa ni Ousmane Minam nee na ma indil ma yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax ndox eh, fan lañ ci amee fi eh kii ndox ah, ah fi am na mi ah, amul ndox amul. amul ndox hmm, gisuma dara de eh, barki yàlla gisuma dara gisuma dara de hmm. eh, léegi léegi eh, fi ñu toll nii léegi fi ñu toll xam nga lu am fi amuñu dafa am ay message yoo xam ne dañuy jàll ci suñu loo la bëgg ñu nañ ko wax ca dee loo ngi ñaan ñu ma doo fa boire de l'eau Abdoulaye waaw Modou Lo. déggu ma Dame Lo. du woon Lo Mor Lo. Lo mi Lo. Eh, demaatal demaatal demaatal eh, na demaat demaatal Aba. kan Aba demaatal. kii kii émission bi nu mu. est-ce que du maa aussi sax. ci tur yi. Lo. daam loo moor loo loo multimédia waa loo yéen waaw man waa loo yéen ñëpp ñu ngi lay xarit lan ku baax waay ñu ngi seetaan waaw waaw man maa ngi koy nuyu maa ngi koy daal ñoo fay waaj a dem mm, mm, mm. dem waaw incha ca Minam euh, Minam am na HLM Minam am na Pikine waaye am na biir Sandaga ma indil ma ñaatam ba ak Mado Diaw. dëgg solo leen daal waaw daal leen ah, jox ay bisu ñu takk. loo jox leen ay saag ñu yor. ah yooyu moom Ousmane la tudd daal. Ousmane Ousmane Minam. ñu ngi lay ah, nuyu. Ousmane Minam maa ngi borom ñaata Minam. waaw Xadija <laughs> Minam. Minam daa xamante yëfi yëfi Fuuta. waaw. Ah, a Minam yëfu Minam. ayca ayca mi ngi noonu léegi nañu dem ci li nga xam ne mooy album bi euh, wax naa ni euh, album mbalax bi nga xam ne Youssou moom la génnee euh, mën ngeen dem ci seen Orange Money seen code marchand ngeen mën fa jënd li nga xam ni mooy album bi boo noppee ñëw scanner li nga xam ni mooy QR code bi bu ko defee nga mën a am sa album yow tamit via sa compte Orange Money yéen ñi am Orange Money ñëpp mën ngeen ko am xool leen seen Orange Money ngeen dem ca code marchand ba nga jënd fa li nga xam ni moom mooy album bi ko defee ñëw scanner euh, QR code bi am nga sa album Youssou Ndour douze titres mbalax mi ngi noonu yaakaar naa dañuy demaat. ci Saraba bio. effectivement Aba comme ni nga ko waxee Saraba mu nekk xeetu gaam boo xamante ne dañ ko lépp lu jëm ci karaw. sànq wax naa leen li ci nekk yëpp waaye karaw yi nga xamante ne dañuy faral di damm mooy les cheveux moom da koy jubbanti ba mu baax ba pare da koy rafetal ci nu mu gënee waaye nag yemuñu ci loolu lépp loo xamante ne day jëm ci taaral li nga xamante ne moom moo di gémmu di jigéen wala suñuy baax yooyu ñuy soxla rek law la cat boo fa demee fi nga xamante ne moom moo di usine benn tali ginnaaw école boobu di Majey Sall fa laa jàngee ci noonu ba tey ma leen di nuyu ñoom itam euh, donc woote fi nga xamante ne moom moo di 77 609 79 95 wala nga woote au 76 643 79 75 donc nag muy xeetu euh, gamme boo xamante ne am na shampoing am na huile am na li nga xamante ne aussi moom moo di diwu bopp ñu base bi nag di karité rax ci dolli cannelle aba bu jaañ nuyu ma bébé daaru ak mari mu ndaw loolu maa ngi nuyu waa ndar fu ndar-ndar toog di ma seetaan maa ngi leen nuyu xam naa du ñàkk benn dimanche sama yaram day tàng rek. ma woo sama yaay ne ko nañ dem ndar. <laughs> boo leen dem ba tàyyi nëbbu naa ko ba tàyyi mais mënatuma kaa nëbbu see la. <laughs> waaw nañ dem ca mën a bote. baal leen ma baal leen ma. bëgg xam ngeen ni ngeen def ba am ko waaye ñi nga xam ne bëgg ngeen ñoo jot wala ngeen dugg ci émission bi def leen 88 628 628 wax naa ni 65 65 02 02 03 03 04 05 72 86 ak yaa ca topp numéro yaa ngi noonu affiché. xanaa gaañu ngeen maam raan balaa ñu jëm euh, ci li nga xam ni moom mooy sport euh, vitamine drink euh, balaa ñu jëm ci meew mi nga xam ni moo gën a neex di meew ci yow daa dama bëgg nga wax ma yow bu ñu la doon tegal son yow ban son ngay ñaan ah balaa nga koy tànn joxal ma ko Jami sama waaj sama jabar la bu mag bi. moom dem gay kay moom kii mooy madame Nele. kii waaye kii waay. kii waay ki nekk suñu caméraman bi. waaw moo koy denc. dégguma. ah tonton Medoune Diouf. ah ma denc mais noo koy denc. mais loolu. lay liggéeyee boobu ni mu demee. waaw waaw mais na ko daan jël di ko yónni. ah da ko yónni. waaw di ko kamara. waaw mu naan ko tonton. xale bi di feeñ. tonton Médoune. naan ko tonton. après. waaw ah. tonton Médoune seere ma. la la dal ca dal jël ma laars. waaw kay waaw. joxal ma ko sama mi seere. na jaay na jël. xoolal ma soog. waaw na jël na jël sama nijaay baa ngi law ba tey. ministre de l'intérieur sama nijaay la jox ko son. waaw mais nag son bi dama koy jël. Eh, kii naan ma ndax ndax kee mu ngi woowee kii ba tey tontu ma ne ko ma nekkuma seen témoin. ah nekkuma témoin <laughs> mari ñoom daal li ngeen boole. ah léegi def may nekk léegi. kon soo ko ah léegi def na ci may nekk. ku jigéen ki day animé. <laughs> ku góor ki di ko filmé. mu naan ko tonton Médoune waaw tey bu ñu fii. waaw mu jël ko large. tonton Médoune oh. seere mu jël ko seere. ca tonton Jalla semi large. waaw mu jël ko semi large. mu jël ko ah. polonzon. moom dañuy def may polonzon ko mujjee jël polonzon. da cee mujjee def may xam nga ton. yooyu bi mu ko jëlee polonzon. tonton Médoune ndeket tonton Médoune. waaw bi mu jëlee soxna Jami Gueye polonzon. waaw. <laughs> bilaay Médoune jël ma polonzon waaw mais mais may ma may. jox ko wala des jabar ji. waaw mais son bi dama koy may ma eh, eh, eh. yooyu am na fi de am na fi ci rajo bi mbaadu day jël kii. de. waaw Médoune mbaadu day jël kii. yooyu dañ ko respecté trop si biir. yooyu miin nañ ko fi léeg ñaatam da dal ci télé ba ak rajo ba. Ah, lu ma def waaw du sa morom. lan laa def non naan ay ndax Médoune Diouf day naan lii. ah day day day day ah li li li eh, kay naan te siiw nu ñoo ëpp li kay naan te siiw ah kay ah lii mën nga kaa am dund nii di nga génn dund naa ko ne doomam ma ko ci biir <laughs> waaw ah mooy fay toll waaso bi di nga dem kër bi de li na bëri ci biir ah ci kër yi dina bëri ci mbali trop. Tawraan nga ni man soo nga tànn da ngeen koy ah, da ngeen koy teg. moom ay ka manjoon borom ñàkkorom. Ah, la mayoon nag bi. waaw yaa yaa dimbali ma. Eh, des na. ah, ah. kan xew sa xew ma. ah kan la koy maye ak waaw a naka bëgg kooku. Ndiaye Ndiaye ni jooy rek kan la. gouverneur. Eh, ban gouverneur yow. kan la xale yi di ko wax. kanu koy présenté. ki am moo respecté ay garde corps da ngeen di am nii. ñu leen di yóbbu seen kër yi. Ah. Eh, jom bu baax ma. waaw sama taalibu Serigne Saliou. xaaral bu dugg dugg bu dugg ko direct wala ñu bàyyi ba ñu bàyyi ba mais xam fekk Touba. couvre fa. couvre fa patam rek wax la nii. waaw. Ah. lii loolu. patam. waaw ñu waxoon ne da ngaa dem tàbbi nii. patam rek dootoo ko defee. dinañ maa lay wax ci moom nga may dégg. jo waaw tuuti lay wax tuuti. waaw waaw man la bàyyi wax bari ji moom tuuti lay <laughs> man de waxul Pape Diouf yow wax nag ndax yow yaay bàyyi soxna Mouminatou Kébé. waaw. sa nijaay la sama nijaay daal sa nijaay. te rek ko dee ma ma ma ma arrêté ma arrêté ma arrêté kii réalisé bu dee dafa am problème ak kii animé. est-ce que xanaa xanaa jotul message bi. kii dugg ci sama yaay ji dugg ci sama doom ji nga xam ne ñaar la féete man doon ci man yaay soxna muumi eh, doon ci man doom ñu dippee ma Alaaji Njaga Kube Njaga Kebe Babacar te maa wa di taawam maa wa di taawam waaye nee na yow yaay bàyyam waaye yaay ay laay choix bala choix bala te choix bala Babacar Kebe laa tudd te choix bala sama man sama ngénti ñoom lam ñi fekke nañ ko sama ah ba yow Aba lii lii lii dëkk bi seet ay ñu dugg fa daal koy nuyu dëkk da ngay nuyu buur ba dëkk ba waaw dëkk ba dëgg la am na solo ñu nuyu maa ngi nuyu tamit jéeri joon ndee la. moom mooy borom oto yi. moom ma nga ca Dubaay. waaw daa doom yaayu président sama jëlam taxi doom yaayu Baye Ndiaye. sama jëlam taxi bi doom yaayu Aziz Ale Ndiaye. <laughs> jéeri joon ak a bari jom. borom ah, oto yu baax yi ma nga Dubaay jéeri joor nee na doom yaay Karim Medsouy doom yaay prési Cissé euh, prési mi nga xam ne ci statut am laay yendu su ma ba su ma bëggee reetaan statut prési laay yendu lu mu statut temps la yàlla na yàlla defal ko jàmm ku baax ku baax ñi may wàññi maa ngi leen di gërëm. lu tax nga tànn son bi son bi lu tax son bi lu tax nga tànn ko. waaw mais euh, euh, son bi Abba li tax ma tàmm boo ko. ne ah. na ci euh, xol la way. dafa way way woo xamante ne nii képp kuy. melomaan boo ko dégloo dina la teg ci route boo mag moo ñu seetaan moom waaw waaw nekkul ci réew mi sax ma nga Amérique moom bu ma la ko waxee kay seen xol day seet du guy du góor mm-hmm. ku jigéen la ndeysaan ndaa naan la. Hmm. ci lu ñuy def nii. Hmm. xam ko maîtriser ko nekk ah. star bu mag ci Amérique. carter sama laa xëy la la bëgg nga la. léegi nag lii mënu mënu ma cee teg dara. lu dul. sant meew mi nga xam ni mooy jawda lu dul. sant sport nga xam ni moom mooy eh, sport vitamine drink boobu nga xam ni tabarkàlla kenn du moom. mati carter seetaan gi ñu seetaan tey. Hmm. yàlla na la yàlla yokk ay xéewal. sama xol bi féex na. jërëjëf Mado. nuyul yaayu ñaatam jërëjëf. xaritam ak jërëjëf. jërëjëf kenn du tàggoo émission ba jeex na.